الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu boroom ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moom bi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii ubbi téere bu sell bi jàng ci taataan ci ngir mu doon yokkute ci ñun ñi koy wax ak yéen ñi koy déglu mbokk yi niñ koy faral di defee saa su nekk dañuy ubbi téere bu sell bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox ngir jàngal ñu ngir won ñu boppam ngir tabax ñu ngir ñu doon ay góorug yàlla nit ñi nga xam ne ca dëgg-dëgg dañuy nekkal yàlla sunu boroom tey jii nag dañuy jàng ci kóllëre gu njëkk gi jàng ci xaaj bi nga xam ne moom lañu jagleel yonent yàlla jérémi jàng ci aaya juróom ñeent jàng ci saar ñaar fukk ak ñett ba ci ñaar fukk ak juróom lii la yàlla sunu boroom wax nee na maa ngi wax man aji sax ji bu boroom xam-xam bi ndamoo xam-xamam bu boroom kàttan ki ndamoo kàttanam bu boroom alal gi ndamoo alalam wante kuy ndabu na nga ndamoo xam ma na nga ndamoo xam ma na nga ndamoo wéetal ma man aji sax ji loolu la yàlla sunu boroom wax ci téereem bu sell bi wax ko jëmale ko ci jaamam yi nga xam ne moo leen sàkk jëmale ko ci ñun doomu aadama yi nga xam ne moo ñu sàkk dugal ñu fii ci biir àdduna jox ñu lépp li nga xam ne soxla nañ ko ngir dund ci anam yu baax anam yu rafet ndaxte yàlla sunu boroom amaluñu dara lépp li dox sunu digganteeg moom jox nañu ko ba mu mat sëkk mu yokk ci ne nag doomu aadama bi ma sàkk sama jaam bi ma sàkk mbindeef bi ma sàkk lii laa koy digal nee na ki am xam-xam bi bu mu ndamoo xam-xamam nee na ki am kàttan bul ndamoo sa kàttan nee na ki am alal bul ndamoo sa alal wante kuy ndamu nang ma ndamoo man yàlla ndamoo xam ma ndamoo wéetal ma yàlla sunu boroom di jàngal foofu doomu aadama li nga xam ne moo ëpp solo muy jàngal foofu doomu aadama ne xam-xam am na te xam-xam lu baax la nit ku nekk da nga war a wuti xam-xam xam-xam yàlla sunu boroom moo bëgg doomu aadama di ko wuti yàlla sunu boroom di ñu jàngal ne kàttan am na am na ñoo xam ne yàlla may na leen kàttan ci seeni cër wante itam may na leen kàttan maanaam ndombal tànk yi nga xam ne yor nañ ko lu ñu sóob mu nekk lu ñu wax nit ñi déglu leen mbooloo mu bari topp leen ñu am sañ-sañ yàlla sunu boroom nee na loolu am na yàlla sunu boroom di ñu wax nañu boroom alal itam am na yàlla sunu boroom day maye nit da ngay liggéey yàlla sunu boroom teral la nga tedd nga mujj dem ba am lu bari yàlla sunu boroom ñeena yooyu am na yàlla sunu borom nee na yooyu dañ koy fekk ci biir àdduna wante nee na li gën a am solo mbindeef bi mu bind jaamam bi mu bind warul sukkandiku ci loolu bay ndamu wante dafa war a sukkandiku ci xam ko moom yàlla sunu borom aji sax bi di ndamoo loolu yàlla sunu borom di delloo xel yi ci boppam nee na na xel yi dellu siwaat ci moom mi nga xam ne moo ñu sàkk yàlla sunu borom dañuy jàngal foofu ne xam-xam dana mës a jeex waaw xam-xam dana mës a jeex dana am na foo xam ne buñ fa tolloo foofu xam-xam dootu fa amati njëriñ yàlla sunu borom dañuy jàngal nañu kàttan itam dana mës a jeex boo ko xoolee rek ci nit ni mu bindoo bu dee ci ay cëram la nit mën na am kàttan wante am na at yoo xam ne boo fa toll sa kàttan tàmbali wàññeeku la nga mënoon dootoo ko mën nit dana am ay ndombal tànk wante yàgg-yàgg ndombal tànk yooyu danañ ko tekki ci yow bu ko ñi la ko joxoon tekkiwul wala boog yàlla ci boppam tekki ko bés bakkan day rot te bu boobaa ndombal tànk itam dem yàlla sunu borom dañuy jàngal foofu ne loolu itam day mës a wees yàlla sunu borom ne alal alal day mës a jeex alal day mës a dem yàgg yàgg yàgg alal day jeex te nit du dem du faatu wala dem ba nekk ci kanamu yàlla boroomam di yóbbaale alal alal fii lañ ko fekk alal fii lañ koy bàyyi kon muy delloo xel yi ci loolu muy delloo xel yi ci ñett yooyu nga xam ne mi ngi ci biir àdduna dëgg la nit mën ko ndamoo dëgg la wante muy delloo xel yi ne de loolu de du li nga xam ne moo ëpp solo du li nga xam ne moom moo war a tax nit di def kémtalaayu kàttanam li nga xam ne moom moo war a tax nit di def kémtalaayu kàttanam mooy nga xam yàlla mooy ngay wéetal yàlla mooy ngay déggal yàlla yàlla nee na loolu moo jara ndamoo kon mbokk yi képp koo xam ne yaa ngi wéeru ci sa alal di ci ndamoo yàlla sunu borom nee na la defal ndànk képp koo xam ne yaa ngi wéeru ci sa xam-xam di ci ndamoo yàlla sunu borom ne la defal ndànk képp koo xam ne yaa ngi wéeru ci sa kàttan wala ndombal tànk yi nga xam ne moom nga yore di ci ndamoo yàlla sunu borom nee na déedéet defal ndànk ndaxte yooyu dafay wees yooyu dafay dem yàgg-yàgg day génn ci sa loxo kon li nga xam ne moo am solo mooy waruñu jàpp ci li nga xam ne day wees li nga xam ne yàgg-yàgg day génn ci sa loxo wante kay dañu war a wékk sunuy gët ci li nga xam ne loolu du jeex ba faw loolu bésu pénc ba dañ ko fay fekk mooy lan mooy yàlla sunu boroom di liggéeyal yàlla sa boroom di ndamoo yàlla sa boroom di déggal yàlla sa boroom di wéetal yàlla sa boroom moo tax mu ne ki am xam-xam bu mu ndamoo xam-xamam ki am kàttan bu mu ndamoo kàttanam ki am alal bu mu ndamoo alalam kii ndamu na ndamu ci kaw xam ma di ma wéetal di ma déggal mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dugg ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
أتعرف للرب فإنه صالح هاليلويا أتعرف لإلهنا هاليلويا أعترف لرب الأرباب هاليلويا
kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy di jàng li ñu yàlla sunu borom wax ci téereem bu sell bi ci bible bi ci kóllëre gu njëkk gi li nga xam ne wax na ko jaarale ko ci yonentam boobu di jérémi ma leen ni fàttali saar yu am solo yi nga xam ne wax na ko ci jérémi ci aaya juróom-ñeent saar ñaar fukk ak ñett ba ci ñaar fukk ak juróom nee na kuy ndabu na nga ndamoo ci xam ma nee na kuy ndamu na nga ndamoo ci xam ma man aji sax ji man yàlla seen boroom dañuy gis nag ci biir àdduna nit di ndamoo juddoom man de ci deret bii laa bokk ci yax bii laa bokk ci askan bii laa bokk dañuy gis ci biir àdduna nit di ndamoo turam nit di ndamoo kàttanam nit di ndamoo xam-xamam nit di ndamoo lijaasa yi mu am nit di ndamoo alal gi mu am loolu dañ koy gis ci biir àdduna yàlla sunu boroom ne loolu nekk na wante bàyyi leen ma wax leen li nga xam ne moo jara ndamoo tur jarul ndamoo alal jarul ndamoo xam-xam jarul ndamoo kàttan jarul ndamoo yàlla sunu boroom ne bàyyi leen sama jaam yi nga xam ne maa leen sàkk ma won leen li nga xam ne moo baax li nga xam ne moo nekk li nga xam ne moo jara ndamoo nee na kuy ndamu nang ma ndamoo man yàlla sa boroom man mi nga xam ne maa la sàkk te nag ma ndamoo ci kaw nga xam ma ci kaw nga déggal ma ci kaw nga may wéetal nee na loolu moo jara ndamoo bu ñu xoolee ci kóllëre gu bees gi yàlla sunu boroom mi ngi wax ci bataaxal bi ñu jagleel waa korent bu ñu xoolee ci aaya benn xool ci saar fanweer ak benn foofu yàlla sunu boroom mi ngi wax jaarale ko ci ndawam googu nga xam ne mooy Pool mu ne kuy ndamu na nga ndamoo ci boroom bi kuy ndamu na nga ndamoo ci aji sax ji ci yàlla sa boroom xam yàlla déggal yàlla di wéetal yàlla topp ay tereem topp ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu moo jara ndamoo topp ay ndigalam sax ci ay ndigalam def sa kémtalaayu kàttan jël sa bakkan teg ko ci jël sa lépp teg ko ci ne man kat yàlla rek yàlla rek yàlla rek lépp looy def nga jiital ci yàlla lépp looy xalaat nga jiital ci yàlla jéego boo teg nga jiital ci yàlla looy yëngatu nga jiital ci yàlla yàlla sunu boroom nee na kooku moo war a ndamu ndaxte kooku moo nekk ci dëgg moo tax mu ne kuy ndamu na nga ndamu ci boroom bi nekkal yàlla séqul dara ak alal nekkal yàlla séqul dara ak kàttan nekkal yàlla séqul dara ak xam-xam nekkal yàlla nekkal yàlla la nekkal yàlla nekkal yàlla la nekkal yàlla du lu ñuy donn nekkal yàlla du ndono nekkal yàlla du caagaynu man kat dama juddu ci askan boo xam ne dañu mës a nekkal yàlla déedéet yàlla dafa wax ak yow ci sa bopp dafa ne yow jëmm ji sama jaam bi yow laa waxal waa yow nag lan moo dox sama digganteeg yow lan mooy sa taxaween sama digganteeg yow ndax yaa ngi ma nekkal ndax yaa ngi may wéetal ndax yaa ngi may déggal yàlla nee na yow laa waxal yow ci sa bopp yàlla nee na waxumaak askan bi nga soqee ko nee na dama wax ak yow ndax yaa ngi may ndamoo ci kaw gëm nga ma nekkal nga ma te jeex nga ci man te jiital nga ma ci lépp moo tax muy wax fi naan kuy ndamu na nga ndamoo ci borom bi ki jara jiital ki jara ndamoo ki jara bàyyi xel saa su nekk ki jara ragal ki nga xam ne war na tax ñuy def sunu kémtalaayu kàttan ngir xam ko kooku mooy yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom moo war a tax nit ku nekk jaam bu nekk jaamam bu nekk di def kémtalaayu kàttanam saa su nekk di def kémtalaayu kàttanam ngir xam ko ngir di ko wéetal ngir di ko jiital yàlla sunu boroom nee na jëmm jooju nga xam ne fi foofu nga teg sa tànk loolu ngay jëfee nee na jëmm jooju moo war a fëgg dënnam di ndamu ndaxte loolu mooy li nekk loolu mooy li nga xam ne dina wéy loolu mooy li nga xam ne am na solo loolu mooy li nga xam ne doo ko perte bu mukk foo dem mu topp la kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dellu si ci ñetteelu wax euh, xaaj bi ñuy tëjee suñu waxtaanu tey
إليه هاليلويا
الذي ضرب مصري مع الكافرين هاليلويا
وأخرج إسرائيل من بينهم هاليلويا
بيد مقتدرة وساعد رفيع هاليلويا
الذي شطر البحر الأحمر إلى شطرين هاليلويا
وأجاز إسرائيل في وسطهم هاليلويا
وجندل فرعون وجنده في البحر الأحمر هاليلويا
jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy di jàng ci téere bu sell bi li ñu yàlla sunu borom wax fi nga xam ne fa la ñu war a teg sunu tànk yàlla sunu borom niñ ko jàngee ci téereem bu sell bi sànq dafay soññ ay jaamam ngir ñu jiital ko ci lépp li nga xam ne ñi ngi koy def te seen dund fii ci biir àdduna ñu jiital ko moom aji sax ji sang bu tedd bi nag di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ dafa ñëw jàngal ñu dafa ñëw yàlla sunu borom jëmmal ko mu wàcc ci sunu biir yàlla sunu borom di ko sol muy wax ak mbindeef yi xel mu sell mi di ko sol muy wax ak mbindeef yi mu wax ñu ci injiil ci xaaj bi ñu jagleel Matthieu ci aaya juróom benn ci saar fanweer ak ñett mu wax ñu lii nee na waaye njëkk leen a wut nguur ak njubteg yàlla te loolu lépp dina leen ko ci dollil nee na njëkk leen a wut nguur ak njubteg yàlla te loolu lépp dina leen ko ci dolli da doon wax ak ay taalibeem di wax ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ko toppoon di wax itam ak ñun di wax ak bépp doomu aadama di leen jàngal naka lañu war a jaamoo yàlla seen boroom te fan lañu war a teg seen tànk mu leen di wax ci saar bu am solo bi ne leen yu baree ngi ci biir àdduna nit am na ay soxla am na ay yitte yu baree ngi ci biir àdduna nee na bu ñu yooyu jiital ba ñu fàtte yàlla sunu boroom moo tax mu ñuy wax naan jiital leen yàlla seen boroom dee leen njëkke yàlla ak nguuram ak njubteem dee leen ko njëkke dee leen wut yàlla njëkk dee leen jiital yàlla ci lépp loo leen di def saa soo leen yeewoo jiital leen yàlla ci bés bi nga xam ne may na leen ko ngeen dund ko saa soo leen yeewoo jiital leen yàlla seen boroom ci bés bi nga xam ne may na leen ko ngeen dund ko moo tax mu wax fi naan jëkkal leen wut nguuram ak njubteem njëkk leen wut nguuram li njëkk mooy yàlla li yàlla namm ci jaamam yi mu sàkk mooy ñu jiital ko ci lépp te lépp li nga xam ne dañ koy def lépp loo xam ne fas nañ yéene def ko nañu ñëkk a jiital yàlla nañ ko teg ci kanam nañ ko wut moom li ci des yépp war a ñëw loolu la ñu sang bu tedd bi jàngal loolu la ñu seydina isa almasi bi yeesu christ wax mu yokk ci ne nag bu dee kat foofu la ñu teg sunu tànk bu dee ci loolu la ñu nekk li ci des yépp yàlla dana ñu ko jox danañu may xam-xam danañu may lu ñu suturla danañu may kàttan danañu may wérgu yaram dana wàcce ay xéewali xéewal ci sunu kaw ndaxte jiital nañ ko te ku jiital yàlla yàlla dana la sàmm ku wormaal yàlla yàlla wormaal la ku jox cër yàlla yàlla jox la cër ndaxte yàlla dañ koy jox cër yàlla dañ koy jox cër yàlla dañ koy warmaal warmaal yàlla nag mooy nga jiital ko ci lépp loolu la ñu sang bu tedd bi jàngal loolu la ñu seydina isa almasi bi yeesu christ jàngal am na yoo xam ne mi ngi ci biir àdduna wax nañu ko bu ñu xoolee ci saar yi féete ci kaw ci injil ci aaya juróom benn bi mi ngi wax foofu ne xool leen picc yi nee na du ñu bay du ñu góob wante duñu fande mukk nee na xool leen mboq nee na kenn gënuna mënoon a solu suleymaan wante nee na mboq moo gën a mën a solu suleymaan te mboq yàlla sunu boroom moo ko sàkk xool leen misaal bi mu ñu jox foofu di ñuy wax foofu ne lekk ak naan ki nga xam ne jiital na yàlla yàlla dana ko jox lu mu sutur la ba mu doy la sëkk nee na wodd ki nga xam ne jiital na yàlla yàlla dana la wodd ki nga xam ne jiital na yàlla yàlla dana la may xam-xam ki nga xam ne jiital na yàlla yàlla dana ko may kàttan mu ñuy jàngal foofu ne dee leen jiital yàlla dee leen ndamoo yàlla dee leen wut a xam yàlla dee leen wéetal yàlla dee leen wéyee ay ndigalam tey bàyyi ay tereem moo tax mu ne waaye njëkk leen a wut nguuram ak njubteem te loolu lépp dina leen ko ci dollil képp koo xam ne jiital nga yàlla sa boroom képp koo xam ne yaa ngi ndamoo nekkat xam nga yàlla du nang ci kab làmmiñ rek maanaam ci jëf ak dund yàlla sunu boroom nee na kooku danaa wàccee ay xéewal ci dundam nee na li nga xam ne moo am solo te doomu aadama war a def kémtalaayu kàttanam ngir jot ko mooy nga xam yàlla mooy ngay wéetal yàlla mooy ngay nekkal yàlla mooy nga jeex tàkk ci yàlla sa borom ndaxte ab jaamam nga te moom moo la sàkk te ëllëg boo demee ci bisu pénc ba la nga fay fekk ba abadan la nga fay fekk ba abadan loolu du jeex muy ci fànn bële muy ci fànn bii li nga liggéey te koy fekk foofu du jeex ba faw da nga koy dund ba faw moo tax mu ñuy wax naan ñu kon xëccu leen am li nga xam ne du jeex ba faw alal day jeex kàttan day jeex xam-xam day jeex wante la ñuy fekk ci sunu kanam ca bésu pénc ba loolu day wéy abadan te loolu kon moom moo jara bàyyi xel mbokki auditeurs yi yal nañu yàlla sunu boroom dimbale ci darajey seydina isa almasi bi yeesu christ moom mi nga xam ne dafa jeexoon ci yàlla moom mi nga xam ne bi ko yàlla sunu boroom jëmmalee ba mu wàcc ci sunu biir daf ñu jàngal daf ñu won dafa jëf ñu gis ngir mu doon royukaay dafa nekkoon koo xam ne nee na amul dara loo xam ne dama koy def wala ma koy wax te jëlewuma ko ci yàlla aji sax ci nee na amul dara lu ma yitteel lu dul nekkal yàlla aji sax ji kon yàlla na ñu roy ci moom te yàlla na barke mu wàcc ci sunu kaw ba ñu mën a roy ci moom ba nga xam ne danañ jiital yàlla ba nga xam ne kat bu ñuy wut lu ñuy ndamoo nañu wut yàlla sunu borom ndaxte kuy wut loo ndamoo na nga dummooyu tur na nga dummooyu alal na nga dummooyu xam-xam te nga dëgmal wuti yàlla sa borom ndaxte loolu moom moo jara ndamoo kon yàlla nañu yàlla sunu borom dimbale yàlla nañu yàlla sunu borom baaxee yàlla na wàccee yërmandeem ci sunu kaw ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ bañ koy jiital ci lépp lu ñuy def te at yi mu ñu may fii ci suuf ñu dund ko ci kaw di ko jiital ci lépp li nga xam ne ñu ngi koy def lépp li nga xam ne ñu ngi koy namm ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo leen doon defal sunu émission kàddu gu sell gi te di leen fàttali képp koo xam ne nag bëgg nga jokkanteeg ñun suñu numéro de téléphone di 0 di 77 0 74 35 35 77 0 74 35 35 képp koo xam ne itam bëgg nga am ci téere bu sell bi ci bible bi boo jokkanteeg ñun danañ la dimbale ba nga am ci benn wasalaam.
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
إن